finale Coupe d'Afrique euh, des Nations 33e édition au CAN Cameroun 2021 à la une euh, image u euh, benn gaynde Abdou Diallo euh, les Sénégalais l'adorent quand même euh, ci CAN bi je pense que euh, il est dans les cœurs comme ñaataangoom yi ñu nekkee ci xolu Sénégalais parce que ñoom ñëpp dañoo def liggéey bu am solo moo xam ñu nekk ci banc bi moo xam ñu nekkoon ci terrain bi parce que kan moom mi <laughs> dinañ ko xëcc mu ñëw ci équipe bi Abdou Diallo il est magnifique et puis son son charisme quand même ñëpp waxtaane ko voilà soñ paree nga wayal ko ko donc loolu moo tax l'observateur jël nataalam euh, CAN 2021 demi-finale Sénégal Burkina Faso 3 buts à un faute de bonheur donc euh, euh, Pape Fall moom wax na ne na euh, mooy match bu gën a abouti ci gis-gisam Maliku Jaxate moom it ne ce groupe dégage une force collective force boobu sax ngay gis ci kanamu kii di Abdou Diallo Sadio Mané leader par exemple moom ak abdu Diallo axe du bonheur Aliou Cissé à jamais le premier mooy li ñu doon wax sànq loolu la l'observateur wax à la une de l'observateur également président Macky les détails de la la réunion de euh, Macky Sall avec son parti bu leen bëggee xam lañ ko doon waxtaanee da ngeen dem yëri euh, xët bu njëkk euh, xëtu page 3 bu l'observateur beneen xibaar ci l'observateur muy crime odieux à Mbour lu doy waar soxna si nataalam a ngi nii moom it mu ne soxna la su am ñaar fukki at ak juróom-benn ñu fekk ko mu faatu ñu dugal ab néewam ci mbuusu plastique. Euh, ñu ne nag ñaari fan yi ko doon wër euh, malheureusement euh, bi nu ko gisee fekk wuñ ko ak bakkanam ndax faat nañu ko ba noppi itam denc ko ci anam yu ñaaw ñu jeexale ak record e comme toujours Malick Thiandoum moo leen koy faram-fàccee laata muy ñëw ci way bi mu jagleel Abdou Diallo. Abdou Diallo waaw euh, les lions bouffent les étalons euh, maanaam wan nañu étalons yi étalons yi étalon nag bu ngeen ko déggee aw fas la ñi ngi hmm. xaar Égypte wala Cameroun ku ci ñëw baax na euh, beneen bi ci des mooy deuxième finale consécutive du Sénégal Sadio Mané Aliou Cissé dugg nañu ci histoire bi Sadio Mané homme du match mu ni mentalement et physiquement on a rien bàyyiwuñu dara ba match bi tàmbalee ak léegi hmm. entraîneur u Burkina Faso Kouma Malo mooy moom nee na le Sénégal et plus athlétique et plus expérimenté. loolu moo tax ñu gañee ñu Aliou Cissé sélectionneur du Sénégal. nee na ñëwuñu fii dañoo ñëw pour gagner coupe bi ñëwuñu pour dem final. moo tax euh, vraiment ñu ngi leen di jaajëfal. Mm. Diallo mi nga xam ne nag moom moo wane yoon wi démb. ñu ngi koy est-ce fin bi comme ça. waaw def ñu tàggoo. acca ummi nañ ko de nañ du ma ko sax woy woyatuma Malick Thiandoum man ngay. gedd naa ma bul gedd bul gedd. ummi euh, bi ak ummi